dal leen ak jàmm lu kenn mësut gis moo xew ca Touba ab policier bu nekk en activité la ay gendarme jàpp door ko ba xamut fu mu nekk mbir moomee mu ngi am ci jeudi bi nu génn si boori 13h30 ca yoon ba jëm Daaru Muxti fu fii toll ak intersection bi jëm ca HLM yi Soxna Maya bu ñu sukkandikoo ci journal L'Observateur mi joxe information bi policier bi li mu jotee ak gendarme bi moo di dañ doon xëccoo ab zone de compétence maanaam ci bërëb bi nga xamante ni foofu la ñuy monte mbir mi nag ni mu demee dëgg-dëgg moo di ko fekk foofu mu monte ñu xamal ko ni fii du sa zone de compétence jóge fi nu mu gën gaawee ci noonee la M Samb di policier bi daal di bañ ni du quitter lieu yi ca noonee nag la ko ndawi commandant bu corps urbain Ibrahima Diop dal di jàppee door ba xamatut fu mu nekk ginnaaw door yi nag ci lañ ko daal di manote dugal ko ci seen oto bi yóbbu ko ca brigade ba nekk ca Touba Belel moom policier bi sax jot naa def foofe ay waxtu yu bëri ci ab garde à vue ci ginnaaw bi nag lañ ko bàyyi mu ñibbi këram Bassirou Sarr ginnaaw bi ko gendarme yi brutalisé nag ba pare moom policier bi génn na ci ak ay égratignure maanaam ay gaañu-gaañu yu ndaw biñ ko bàyyee mu ñibbi këram ñaawlu na mbir mi bu baax a baax xamle na ni daal lii metti na ko lool ba fu mu yem ndax kat moom nee na bi coow li commencé exercer wul benn yoon benn forme violence wala sax ab résistance ci kanamu gendarme yi li tax gendarme yi jekku ko mooy danoo bàyyi ba nga xamante ni xaritam bi mu nekkaloon dem na ci lañ ñëwee daal di ko ba tey bi mu ngi xamle ni nag nee na ku jiit njaag moo di commandant bi ndax kat comportement bu irresponsable la wane ci kanamam bi coow li jógee commandant bi daf ko daaneel daal di toog ci kaw boppam ba tey Samb mu ngi xamle ni commandant bi mérité wut palaasam ndax kat yenn ci gendarme yi sax ñu ngi doon négocier waaye nag amuñu woon choix ndax kat ñu ngi woon ci seen kanamu chef te mënuñu woon lu dul lu exécuter ay ordre moom policier bi ba léegi mu ngi xamle ni sant na yàlla bu baax ba mu yorewut arme dina ko tiire bal